so ibnu ali waaye noonu toppee ba ci seyduna xasan mi nga xamante ni mooy sëtu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon moom dafa nekk sërif boo xamante ni pur la et dur waaye moom jëmm jooju nga xamante ni moo meññi Cheikh Mouhamadou Fadal Mbàkke na soxna Xawa Buso waaye doyoon na rek ci nu indi ay jikkoom ci lenn rek ci ay jikkoom wa ummuhu sayyidatun aabidatun dafa nekkoon jigéen joo xamante ni jigéenuk sang la waaye yemu ci rek waaye noonoon jaamu ko ci yàlla bu mag a mag nga xamante ne li gën a jafe ci jigéen muy nangoo jaamu yàlla waaye moom loolu da koo toggoo woon ci jëmmam ji waaye yemu ci rek nekkoon koo xamante ni xaalisatun la mu nekkoon jigéen ju sell waaye di sellal digganteem ak boroomam waaye tamit di sellal digganteem ki ko suñu boroom boole loon waaye mardiyatun ngërëmug yàlla amoon na ko loolu ngir jaare ko ci ki nga xamante ni moom la ko suñu boroom boole loon waaye moom Cheikh Mouhamadou Fadil Mbacke nag wax na ni mu ngi feeñ jamono ci guddi ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru rajab dëppook le 29 mars 1889 fii Daaru Salaam kon moom mu ngi feeñee dëkk bu tedd dëkk boo xamante ni borom Tuubaa moo ko sancal boppam ak ay njabootam nekk fa ak ay taalibeem mu jël dëkk ba jox ko ab rakkam bu ñuy wax Sidi Gaawaan di maam Cheikh Anta daal di sanc Tuubaa waaye dëkk boobee Cheikh Mouhamed Cheikh Mouhamed Fadal bëggoon na ko loolu ba wax na ni sakkatu rajab su ko màggalee ba guddi jot day dem daaru salaam àggalee fa guddi ga ba fajar jot mu soog a dellu si Touba. waaye ginnaaw bi nga xamante ni feeñ na jamono wax na ni dafa tombe borom Touba doon bind xasid ak ma faarixul bisri yenn ci taarix yi bind nañ ni bi nga xamante ni borom Tuubaa na ba àgg ci baytu yaa faadilan faddallahu lxallaahu yaa man bihi faaraxanil imlaaxu waajihtugal yowma wali razaaxu kaana bi maa tanmu bihi arzaaxu nee nan kat foofe lee foofee ci la ak ndaw ñëwee ni ko kot soxna xaw bu sa am na gan nee na biñ ne ko soxna soxna xaw bu sa am na gan ci la bind baydi yooyee nga xamante ni baydi yooyee li muy firi mooy day wane ni kat ak xéewal ñëw na ak njàkkare dem na waaye lépp loo xamante ni nekkoon na ak métit ak tiis dem na te loolu boo xoolee jëmm Cheikh Mouhamadou Fadil Mbacké ji ko ci gis boo xoolee ay jëfam di ko ci gis boo xoolee ay doxalinam di nga ko ci gis wax na ni borom Tuubaa jox euh, sëñ Jaam Abdourahmane loo tur bi ni ko kat nañ ko tuddee Mouhamadul Fadal ñu tuddee ko Mouhamadul Fadal waaye ci tënk rek bi nga xamante ni dem na ba tollu waxtu jàng moom ak ak rakkam ju tedd ja di seex mo seex Mouhamadul Moustapha borom moo leen dalal ci loxoog boppam. ginnaaw ba mu leen dalalee ba noppi mu jël leen jox leen sëñ daaru ab sëñ daaru Abdourahman lool nga xamante ni lu ëpp ci mbàkke mbàkke yi ba lu ëpp ci njabootu borom Tuubaa yi. moo leen jàngal ba nu wat waaye bi nga xamante ni nekk na ci sëñ daaru Abdourahman Lo ba wat fa alxuraan ba muñ ko loolu yemu ca rekk waaye dafa continuer di gëstu xam-xam farru ca loolu bi nga xamante ni mokkal na alxuraan nag tàmbali naa jàng li nga xamante ni moom la ñuy wax xulumu sariya li nga xamante ni mooy attey islaam lu ci mel ni ay fiq ak uh, ay usul ak ay tawxiid ak yu demee noonu yooyu yëpp géej na ci ba sori ci loolu waaye yëmu ca rek ginnaaw gi jóge na foofu demaat ci rakku ci di boroom Daaru Mooti maam Cerno nekk na fa ab diir jàng fa tamit ulumu sariya jàng fa luxatul arabiya jàng fa tamit xeetu xam-xam yu bëree bëri ginnaaw gi fa la jóge foofu demaat ci magi borom Tuubaa muy Maam Moor Jaara borom Saam àggalee fa la des ci àlli woomam jógewaat fa delluwaat ci borom Daaru Mooti waaye ba tey moom sëñ Fàllu nekkoon koo xamante ni ku amoon wàccuwaay la ci Seexul Xadiim waaye wàccuwaay bi nekkul loo xamante ni rek da koy wax daa euh, dàcca déedéet da koo wax daal koy jëf dund ko ba tax na lu ëpp ci mébétu borom Tuubaa yi nga xamante ni borom Tuubaa dafa amoon yéene taxawal ko jotu ko àggale waaye ki ko àggaleel kooku mooy Cheikh Mamadou Fadal Mbacke waaye wàccuwaay bi mu amoon waaye wàccuwaay bi mu amoon mooy taxawoon nag borom tubaa diir bu yàgg yàgg ndax ba borom tubaa nekkee Mauritanie fekk na ko fa waaye ba mu nekkee Thièyène tamit fekk na ko fa ba mu nekkee Diourbel tamit fekk na ko fa kon fépp fu borom tubaa nekk rek sëñ Fallou mu ngi ci wetam kon taxawoon nag baayam loolu waaye noonee la nekk ba sëñ tubaa jox leen ndigal ñi leen dem leen sañ ci dëkk Sëñ Mor Faati daal dem sant daal di dem sañ ci dëkk sëñ Mor Moustapha daal di dem sañ ci dëkk waaye itteem moo nekkoon ngir sañ ci dëkk googu li taxoon mu koy def objectif bi mooy lan waa tarbiyatul muridiya fexe ba yar taalibe yi ca la sëñ Tuubaa bëggoon waaw xanaa di nuyuwaat rek sunu sang bi nga xamante ni moo fi teew léegi di sëriñ Assane Fall mu sëñ Modou Aminta ñu ngi koy ziyaar bu baax a baax ci ci teewaay bi ngir ni moom kat mbooloo mi lépp luñ xewle buñ gëstoo daal ku ko ciy gis kon ñu ngi koy da dalal bu baax a baax di ko wax ëhlan wa sëhlan waaye fi ñu tolloon rek mooy wàccuwaay bi nga xamante ni sëñ Fallou amoon na ko ci borom Touba muy wàccuwaay woo ama am solo waaye bokkoon na ci fexe na ba yar taalibe yi waaye teg leen ci yoon ñoom ñëpp waaye fexe ba seenu bëgg borom Touba di dollee ko saa su nekk waaye fexe tamit ba yar leen ci itte kawe te mooy alhimmatul xaali fillaahi wa rasuulihi waaye fexe tamit ba xemmem leen leen yoon bu baax te mooy yoonu njub te mooy yoonu islaam waaye tamit jeexoon tàkk nag ci bëgg boroom Tuubaa ndax am na ci ay bayit yoo xamante ni moom moo ko bindoon bindu ko ci loxol boppam ndax wax na ni kat bis sëriñ Tuubaa daf leen a woo daan leen kat moom ak sëñ Modou Moustapha daan leen fii de duma fi bàyyi kenn sëñ Modou Moustapha ak sëñ Fallou xam boppam sëñ Moulay Bousso ma fekk woon jojotaay ba tamit di jar baat borom Touba borom Touba daan ni kenn moom xam boppam daan ni li fi nekk lenn koy maye muy ak taalibe tak taalibe nag du dara loolu jaayante képp ca la dugg ca biir daal di jël xalimaam daal di bind ay xasiida di jaayanteeg borom Touba waaye jaayante gi la ca gën a yéeme ba muy wax dafa wax yaa aywa sayxul nafiisul murtaja yaa faatixan maa xabla kaana murtaja néew ko yow saa baay déedéet ndax ndax jàppewu ko woon baay dani ko yow sama sëriñ bu tedd bi yow mi nga xamante ni yaa ubbi mbooleem li tawoon ubbeeku bi nga ñëwee loolu lépp ca la ubbeeku yow mi nga xamante ni yow la ñëpp yaakaar biatu bu nuy watiya bil iraada lakum li kay axtaa bi xarqi aada daan ko li dox sama diggante muy diggante baay ak doom bis ni ki tey jaay naa ko jëndee ko ak taalibe te ku ne xam na ni kat nit ki bu jaayee njëg gi moo ko moom waaye suñ faalu dani ko min ba'di masta mastaraytumuha ahdaytuha lakum bi xayri man nii ginnaaw ba ma la ko jaayee bëgg a jox ma njëg gi ba ma téye ko joxaat naa la ko haddiya kon moom bëggul dara lu ak taalibe daan ni ko fa taxabaluha yaa malaadal kurama laa ziltum bayna albaraya alaman bi jaahi maxduumika almufaddali xayrul awaaxiri maan wal awali daan ni ko kat lii may jaayante ak yow maa ngi lay ñaan nga nangul ma ko yow mi nga xamante ni yaay wéeru yow mi nga xamante ni yaay wéeruwaalu gaay yu baax yi yow mi nga xamante ni musoo dañ di nekk ab symbole ci biir mbindéef yi nga xamante ni sunu borom moom moo la yëkkati waaye moom la tànnal boppam nga xamante ni loolee moom la jaayante woon ak moom takk la takk ndiggam gën a feddali ak laxasaayam ci ak taalibe kon loolu képp koo xamante ni ab mburit ga war nga ko cee roy bu baax a baax muy ak taalibe waaye bokk na tamit ci ay jikkoom nga xamante ni jikkoom yu baree bari nga xamante ni nit ñi waroon koo jàngee ci moom rawatina ñi nga xamante ni ñooy woote woo bëgg fàllu wala ñi nga xamante ni ñoom ñooy taxawal dara ngir jëmmi suñ fàllu ji kon ñooñee war naa am jikko yoo xamante ni dañ koy reyee ci ci ñoom ci Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke te jikko yooyu bokk na ca kaana aaliman bokk na ci lam jikkoo woon muy xam-xam da ko itteeloon loolu tamu mu nangu woon cee sonn waaye nangu woon cee yàq yàq temps bépp kon képp koo xamante ni daga di ndaw toll ci jàng xam-xam kon yow jooju itte war nga koo am waaye yëmu ca rek zaahidan ku dëdd woon àdduna la bu nee nag dëdd àdduna nekkul ni déedéet comme ni sëñ def sanc ni sol jasineeram mu mu tataaru loolu nit ñi jàpp ni daa bëgg àdduna loolu loolu wuute nag bëgg àdduna ndax boroom xam-xam yi bi ñuy wax bëgg àdduna dañ ni mooy lépp loo bi ñuy wax bëgg àdduna mooy lépp loo xamante ni peñatum àdduna la nga jël ko def ko ci sa xol bi loolu mooy bëgg àdduna waaye bu nee azzuhaad mooy dëdd nag mooy nga fexe ba mbooleem peñatum àdduna yi nga génne ko sab xol kon dëddu àdduna du du tee sorlu rafet du tee dawal oto bu rafet du dee dëkk ci kër gu baax ndax bi ñuy rim bëgg àdduna yooyu yëpp bokk ci mooy nga fexe ba sa xol bi daray daray poñoncum àdduna doo ko ci saxal kon nit ñi war nañu war nañ coo royee ci loolee waaye tawaadoon tamit ku mënoon a torox woon te bu nee toroxlu mooy oyof rek ndax nit kat boo xasee ba diis lu ñëw fa la koy bàyyi kon nit warta diis dafa waye oyof toll amuk toroxlu digganteem ak mbindeef waaye digganteem ak boroomam waaye bokk na tamit ci ay jikkoom mooy bëgg gi mu bëggoon borom Tuubaa xam ne bëgg ko am amul fu mu yem daan na wax sax naan euh, xubbul xadi euh, dafa du mooy li xubbil xadiimi fardan araahu daan ni julli ni mu nekkee farata koor nekk farata man fàllu gis naa beneen farata bu bokkut ak boobu ñu ni ko lan la mu ni bëgg borom Tuubaa ba mu jaral la ab jooy dina loolu farata la ci mboolem ak taalibe kon foofu la bëgg mën a yem waaye ba tey waxaat na ni yow mi nga xamante ni yaay wóolu sama sëriñ bu tedd bi defal ndànk ndax doo gis ku mel ni moom ndax suñu boroom kat sàkk na ay asamaan sàkk ay suuf waaye sàkkul ay sëñ benn sëñ Tuubaa la sàkk man raama misla sayxi mahlan falasta taraahu yow mi nga xamante ni daal yaay wóolu sama sëriñ bu tedd bi defal ndànk nee na doo gis ku mel ni moom ndax suñu boroom moom dong la sàkk waaye moo ko beral boppam waaye yëmul foofu rek li nga xamante ni liggéeyal na ko boromtuba muy liggéey bu baree baree bari loo xamante ni nit mënees na see teg loxo bokk na ci yéene di nga xamante ni borom Tuubaa moom la amoon ngir ziyaara ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te jotu koo def ngir li ko gàllankoor ku ne xam na li ko gàllankoor ba demul ziyaara ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yéene joojee ki ko defal mooy Cheikh Mouhamed Fadul Mbàkke waaye yemul foofu rek mébét bi nga xamante ni amoon na ko ngir tawaxal jumaa joo xamante ni mbooleem ku ne si àdduna dina ko gis jumaa jooje ki ko àggaleel mooy Cheikh Mouhamed Fadul Mbàkke waaye bi nga xamante ni taxawal na ko liggéey boobee muy jumaa jooje nga xamante ni da cee sonnoon loolu bi ko sëñ bi ko magam ñu baax ja fondement we di sëñ Modou Moustapha moom mu war a ñëw war koo àggale réew mi mitti lool ci wàllum am-am ak ci wàllum liggéey waaye sëñ Modou Moustapha def na ay pexe ba fexe ba xëcc raay bi ba mu àgg Touba waaye yëmu ca rek waaye fexe na tamit ba fondement jumaa ji sëñ Fallou ñëw àggale ko. waaye bi nga xamante ni jumaa ji àgg na ci la 7 avril 1963 dafa mel ni ku bàqu moom Sëñ Fàllu ngir bëggum bëgg ci loolee nga xam ne moom la taxawal Sëñ Tuubaa moo tax mu ni ko woon kama kunta ta'ammala yaa xadiimu bihi hanixtu fi daari niami fa kun fi nicmatin abadan muxiimu ma an murtadan sayx alxadiimi daan ni ko yow boroom Tuubaa la nga la nga bëggoon di ko mébét di ko yaakaar muy ak jumaa tey jii ñu la ciy ndokkeel loole nga xamante ni moom moo doon sa mébét tey jii àgg na waaye nekkal ci ay xéewal yàq ca soppe ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga mel ni dafa nga xam ni moom dafa bëggoon ba bind ko bayit yooyee waaye sax wax na ni jumaa jooje ay kéemtaan yu baree baree bari xew na ci ndax nee nan bi nga xamante ni architecte yi xool nañ ko ba xool suufu Touba ba xool palaa bi xam ni suuf si àttanu ko dañ ko wax sëñ Fallou sëñ Fallou bi mu ñëwee nee nan dafa wàkki suuf si daal di jël loxoom ndax ciy sotti ndox daan ni bu ko suuf si àttanul sama loxo taaw ko ba yomal xiyam ma jébbal ko borom Touba kon loolu engagement la waaye moo tax borom Touba waxoon ni rabbi stajib waltu kammil ma nawaytu lada tuubal lati bi ko tub naa fii ko bunyaana waafir li man banu bi bana ar rafi waafir li man amarahum jamia daan ko yow sama boroom na nga àggale mébét ñi nga xamante ni danoo am yéene taxawal sama jumaa ji waaye nanga leen jéggal waaye jéggal ñi nga xamante ni ñoom ñoo digle woon ngir ñu tabax ko waaye bi nga xamante ni xëy na nag doon sëriñ Tuubaa ci kaw suuf te la waxe woon waxam ju suuf te la waxee woon waxam ju siiw joojee nga xamante ni 1945 di deuxième guerre mondiale àdduna bépp yi tàkk fu ne di ku ko di ut foo daw di fa làkkatu moom mu nekk tuuba gi rek waaye bindul na ci ak xasida gu siiw a siiw ngir lan di ci jàmmatal mbindéef yi seenu njàkkare ak seenu tis gi nekkee nga xamante ni jamono jooju taroon na lool nit lool wax na ni sax benn kër benn mbubb moo fay am nit ki bu ko bu waree génn moo koy sol lekk manqué woon na Touba lool ndoxum naan manqué woon na Touba lool mu toog 1945 Touba daal di metti lool ca la waxee woon béyitam yii di di ci jàmmat suñu boroom ngir mu def ci dëkk bi ak xéewal ni ko la ni ko li gayrika laa nasku ilaa al wara amra wa ma illana illa ilayka tijat dëhra daan ni ko li gayrika amul keneen ku dul yow laa nasku ilaa al amran ci mbindeef yi ku ñuy jàmbat suñuy mbir ku dul yow daan ko yow rek ci yow rek la ñuy jàmbat suñuy mbir ndax yow rek yaa ko mën a saafara ni ko àdduna kat amuñu kenn gun fi jublu kudul yow ni ko nag walas naa na xaafa durran minan siwaaka kazalika narjulu siwa yusrikum yusra daan ni ko lagarun benn lor mbindéef moo xam bu jóge penk moo xam bu jóge sowu moo xam bu jóge bët gànnaar baa bët saalum daan ni ko ak lor daal fu ne fu mu mënti bàyyi koo fudul si yow ragalun ko ndax yow kat yaa mën a lor moo taxoon mu wax ni ni ko ak yombal ak ak jàppandal amuñu fenn fu ko koy yaakaaree tamit fudul yow daan ni ko waa àdduna baa ngi ay jafeñ-jafeñ dikkal na leen waaye mit na leen loolu ba sax seen xol mënu koo wax waaye la leen lii ñëw ci ay mitit yàlla buñ ko gis yàlla nekk seen ginnaaw nopp ni ko nag àdduna baa ngi fa man mustakin faqaran am na ñoo xamante ni ak ñàkk ñu ngi koy jàmbat saa su nekk waman mustakin balaa am na ñoo xamante ni ñu ngi jàmbat ak tawar gu metti tamutuwa saafaru waman mustakin day nan am na ñoo xamante ni ay bor sonal na leen wasa minum uxra am na sax yéen yoo xamante ni mënuma koo tudd ndax du ay teggin fa kun daafi an saqwal jamii wa ummihim bi lutfin wa kun rabban raufun barra daan ni ko nekkalkat yow suñu boroom nga fegal leen mbooleem jàmm yi nga xamante ni moom lay jàmmatal wa xarnu bi ñoom ñëpp yow mi nga xamante ni yaay boroom ñeewante bi moo taxoon Seex musaaka Ka ba mu koy tagg dani ko woon allahu zu fadlul azim ku mu jox nga neel deesu ko yéem faadulu mooy fadlul amin turam bi dayu na xarnu bi moo di doomi samso xamar moo nàmp ñaari weenu gor moo nàmp ñaari weenu gor mooy sëñ Bamba ci xarnu bi nga xamante ni loole la ko Cheikh Moussa ko waxoon bi nga xamante ni réew mi bari na ay tolof-tolof loolu waaye suñu boroom daal di nangu ñaanam googee daal di def ay xéwal yu wàcc daal di naat ku xool tey jii tuuba xool Touba na meloon xam ni suñu boroom nangu na ñaanam googe waaye dañuy tënk rek ngir ne liñ indi lépp du fi xaj te waxtu wi mu ngi kon nga gis ni yooyee mooy li nga xamante ni moom la sëñ Fallou bindoon ngir di ko jàmbatal askan wi ngir di ko jàmmatal réew mi kon képp koo xamante ni da nekk ci réew mi ameel ko ko njukkal gu rëy rëy waaye nag noonu la fi nekkee noonu la fi nekkee di jariñ mbindeef yi di leen ci zaahir ak ci baatin ba sun boroom xëy dikkëb ak dogalam bi nga xamante ni kenn mënu cee mucc te mooy intixaalu ilaa jiwaari rabbihi mooy ñibbi gi nga xamante ni ñibbi na ko aljana nga xamante ni bis la boo xamante ni nekkoon ne bis bu tiis ci taalibe yi waaye nekkoon ne bis bu siis ci képp koo xamante ni ab jullit ga woon ku dul ab jullit sax bis boobu tiisoon na ci sa jëmm ji mu nekkoon jour boo xamante ni danoo xëy rek ñenn ci taarix wax nañ ni bis bis la boo xamante ni danoo xëy rek mu daal di miis jant bi génnul ngir lan ngir jëmm màgg di ab keno ci diine ji moom la boroom Tuubaa di wax naan xuqal bukaau ala saadaati amwaatin tabkil araadi alayhim kas samawaati ni gaa yu baax yi buñ fi jógee ñi mel ne Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke ñooñu kat suuf da di jooy asamaan da leen di jooy man mi sax dama leen di jooy ngir lañ jooy gi ma leen di jooy ngërëm ak suñu boroom mën naa ko ci am abki alayhim wa arju fil bikaay gadan ridwaanu man fii gaabu bil xalaawaati waaye sama jooyi sax du du man dong déedéet tabki layaali alayhim wa suhuuru maan misla al asiibi wajjin walgaduwaati danni guddi yi daf leen jooy weer yi leen di jooy ba ci bëccëg yi ak suba yi daf leen jooy ngir ak njàkkeer gu nu am ngir ñàkk gi ñàkk gaa yu baax yooyee te Cheikh Mamadou Fadal Mbacke bokkoon ci gaa yooyee waaye li tax ñu koy jooy lenn dong la kaanu ibadan bi taati rabbihim wa kaana jalla lahum bi minnaati ñoom kat danoo nekkoon ay jaam yoo xamante ni danoo nekkaloon yàlla di dundal guddi yi di dundal bëccëg yi di dundal weer di dundal bis yi kon kat ñooñee nga xamante ni ñoo leen daan dundal bu ñu demee ba gisatul leen dañuy am njàkkare am tiis moo tax ñu dëkkee jooy gaa yu baax yee waaye ñooñu dong yemuñu ci kaanu yaddu tarkul weddi ma sibain min al xalaati min asbaabil musibaati ñi ki tamit der yi nga xamante ni dañ daan toog di ci jaamoo yàlla def leeni jooy waaye kukurus yi daan wérdee sax da leeni jooy ngir lan ngir ak tiis gunam ak naqar am ngir gaa yu baax yooyee ñooñu ñoo nekkoon ñoo xamante ni danoo jaayeen seen lépp jébbal ko suñu boroom muy baaxu fudulan bi zikrillaahi xaalixiim fan nawma fi leyli baaxu bil munaajaati ñoom ñoo nekkoon gaa yi nga xamante ni bu ñépp musaana tëdd ci ab lal di nelaw ne nelaw yu neex ñoom ñu jukk lar seenub der jàkkaaroog seen boroom di ko bàkk di ko kañ di ko jaamu ba fajar gi xar kon ñooñu bu leen suuf ñàkkee asamaan ñàkk leen weer yi ñàkk leen kon ñooñu yell na ñu daal leen jooy jooy yi métti ndax ñoom kat dafa am ay jikko yu làmboo woon bokk na seen jikko yi mooy fa xaysuma baratat layla bi bahjatiha anha tawallo ilal mawla bi taati mooy ñi nekkoon ay jëmm yoo xamante ni bu ñu daan dox ba yem ci as jongama joo xamante ni des na leen a lew ñu gaaw wëlbati seenum xel jëmale ko ci seen boroom nga xamante ne ñoom yàlla rek lan daan yëg waaye moom rek lan daan wéttalikoo mooy yan saw na layla wa soda fi qiyaamihim mustahnisiina bi askaarin wa ayaatin ñoom ñaari wéttal lan daan am muy lan zikkar ak jàng alxuraan képp loolu moo nekkoon seen wéttal seen waxtaan tamit nekkul woon dara lu dul xadiisum zikrul mooni naafi samadin la zikru hindin walub naa fil maxaalaati ñoom seen waxtaan gépp ci yàlla la waaye nekkul woon hind waaye nekkul woon layla ci seen waxtaan kon ñoom seen waxtaan yépp yàlla la yàlla moo leen ñor ñooñi nag ñoo fi nekkaloon yàlla di ko jaamu suba ngoon di ko jaamu ci guddeeg bëccëg Seex Mamadu Fadal Mbàkke nag am ci wàccuwaay bu rëy rëy ci jaamu googee nga xamante ni bari na lu baree baree bari bari ci yoonu murit loo xamante ni taxaw na moom moo ko taxawal waaye tamit yëmu ci rek fexe na tamit ba taalibe yi ba mu fi nekkee kenn ku nekk la nga war a nekk yàgg ca kenn ku nekk fa nga war a xëy yàgg ca musa tàyyi di wax ak a soññee ndax ku déglu ay kasetem lu baree bari di xam ni kat ba mu fi nekkee taalibe yi ñoom ñëpp tegu woon nañ ci ab yoon wax nañ ni rek doon na dem nekk ci ab yoon ab euh, taalibe daan dar ko arrêté mu yóbbaale ko mu ni ko mbàkkee bu ñi gënu yóbbaale mu ni ko waaw waaw nan fekk ci yoon wi rek kon li am solo mooy nga fexe ba nekk ci yoon wi ab taalibe nag dafa am lu ko war moom mooy lan bu xasee ba ni aslamtu nafsi daa war a xam ne jëmmam ji moomatu ko ngir lan dafa am borom tubaa ay critères yoo xamante ni moom la teg ni aw yoon kat nii lay doxe ndax borom tubaa yoonu murit da koo teg am ay sart yum teg dénkoon ko maam Cerno borom daaru mooti daal di tukki waaye bi nga ko dénkee tamit yoon woowee borom tubaa borom daaru mooti fexe na ba sàmm yoon wee ba dara euh, raaful kii dund sunna mu ngi dund sunnaam kii dund sariya di dund sariya kii dund xaqi kii dund la ko neex di dund la ko neex te kenn ku ne laaleewul ak moroomam kon ñoo xam ne daal yoonu murit yoonu taalibi la ndax boroom Tuubaa kat ay critères la teg waaye nag boo nee nag dama jébbalu kat ba noppi daan ni yo daan ni nu ma neex laay doxe ëllëg yowmal xiyaam kat di nga dajeeg lu la naqari ndax borom Tuubaa nee na man faala ma saa lexiya ma saa képp ku def lala neex di nga dajeek la naqari kon mu mel ni ñu ngi guddal te sunu mbokk taalibe yi ñu ngi toog ñoom tamit am cër ci bis bi war cee barkeelu kon duñ def dara lu dul wàcc foofu kàddu yi di ñaan yàlla sunu borom lépp lu fi wax mu wàcce ko ci barab bu tedd bi def ko ay xéewal waaye jotalul na ko ki nga xamante ni moo tax ñu teewu ci guddi gi waaye rek ñu ko delluwaat di santaat ak a tatagal sunu sang bu baax bi toog nga xamante ni dama ko waxee rek sànq lépp loo xamante ni waa tawféex xewle nan ko moo xam ku ko mën a xewle tawféex moo xam ci ci tànk yi moo xam ci mag ñi moo xam tawféex gépp saa bu gëstoo rek daal koy gis kon loolu loolu yaakaar naa ni ak yëg-yëg la boo xamante ni am na ko ci ñun kon mënuñoo def dara lu dul di ko sant bu baax a baax ndax ku ne xam na ni kat fa jóge sori na lool waaye mu bàyyi itteem yépp ngir sunu jëmm yi ngir jëmm bis bii kon loolu tamit dañ ko ciy sant bu baax a baax ni loo nii loo jox sa wàccuwaay bu baax a baax Fall kon di wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu